الحمد لله رب العالمين الخائل في محكم تنزيله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا صلواته وسلامه على أشرف العالمين سيد الأولين والآخرين الذي قال في نفسه من شام يوم عرفة كتبه الله بعدد من صام ذلك اليوم وبعد من من لم يصمه من المسلمين ثوابا وعلى آله الكرام وصحابة العظام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد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 nu nuyu leen ziyaar leen ndokkel leen sakku ci yéen ay ñaan waaye ñaanal leen sunu borom mi am jàmm am yërmande am barke yal na yàlla bokk nu ko defal nuyu kilifa diine yi ziyaar leen mu rogalaat ci waajur yi nga xam ni ñooñu bokk njaboote yépp rek ziyaar leen ndokkeel leen waaye ñaanal directeur Haj Makhtar Sylla yal na yàlla dolli ko taxawaay lu libéral ay cëram te mottali liggéey bi ak personnel bi ci ginnaawam yëpp ma teg néew bi ci loxol Aida mu yóbbaale ñëpp géew madame Silla ziyaara wala soppe yeeg am di jàmm yi sama jigéen ca Soudan ma ziyaar ko ndokkeel ko soxna Zeynabu siis ni may toppe waxtaan yi ñu nit ñu ngi ci ñoom ñaanal leen yàlla moom ak njabootam yàlla na yàlla taxawu leen ñaan sunu boroom ci bëccëg yu tedd yi nga xam ni ña nekk ca màkkatal mukaram ña nga ca farata ya te mooy ponk ya waaye ñun ñu leen fi wuutu it tabarfakalla dañuy ànd ak ñoom ci jaamu yàlla wi waaye rawatina nag ci bëccëg yi nga xam ni dañ koy tabarfakalla euh, séentu pour mu yegsi mu bëccëg gu tuddee yow ma arafa muy bisu arafa nga xam ni euh, bis la bu màgg ci lislaam aaya bi ma ubbee léegi daf ko wone keroog bi sayduna muhammad taxawee ca arafat def xajjat euh, def daawaam gu réy googoog xutbaam gu réy googu keroog foofu la ko jibril fekk ne ko yàlla nee na dini lislaam li ma ci waroon a wax yépp mat na moo tax aaya bi ma jàng keroog la ko yonent bi jàng foofu keroog la ko jibril ne waxal nee leen yàlla nee na al yawma akmaltu lakum diinukum tey fii nga taxaw ci arafat muhammad nee leen diine lislaam mat na mottalil naa la it say mbébét xéewal yi nga bëggoon yow moo njol màkka te mooy ñëw màkka nangu ko gërëm naa it lislaam mooy diine ji leneen lu dul lislaam man yàlla ñoratuma keroog laaya bi wàcc waaye falama nazar hazil ayatu farihat sahabatu gayra abi bakri Musa keroog ca Arafat ba aaya bi wàccee gars yi dañoo zibile waaye ba mu des Abubakar Sadiq moom zibilewul moom daa sëngéem lu tax Abubakar sëngéem mu ne li annahu ma baada li annahu ma baada al illa nuqsaan Abubakar nee nañ xelam dafa ñibbine ne nit daal ginnaaw matal Moussa lu mat après lu cay topp wàññeeku lu mat après wàññeeku rek moo ci topp Abubakar ne xelam ñaaw na sagam yàlla nee na Muhammad diine ji mat na ne mbaa sama waaju du dem moom keroog foofu la xel mi commencé liggéey ba Abubakar rangooñam dal ci dënnam gars yi ñoom bégg nañ ci ne diin l'islam li ñu waroon wax yépp wax nañ ko ñoom léegi maîtriser nañ ko dinañ ko mën a def ñoom loolu leen bégal Abubakar moom bég na mais moom xel ma ñibbi na ba tax muy jooy lan la xel ma ñibbi mooy ginnaaw yonent bi yàlla nee na ko sayee matal nga mission bi nga noon dox mais ku wàcc mbaa ñibbi mu ne sagam yàlla nee na Muhammad wàccal te mu ñibbi sama waa ji bu ñibbee dinaa wéet Obakar moom ci la tàmbali rango ñi dal ci dënnam keroog ca Arafat euh, mbokk yi euh, ginnaaw tàggoo rasulullaay googu mu tàggoo keroog ci Arafat euh, nee nañ juróom benn fukki fan la fi defaat ci la dem barzaq moom rasulullahi waaye ngëneel libis bis bi am yonent bi wax na ci yu baree baree bari bokk na ci ngëneelu yow mu arafa Musa mooy ku ko woor yonent bi nee man saama yawma arafa ku woor bisu arafa nee na yàlla dina la bindal kataba allahu lahu bi adadi man saama dalika al dana la bindal limuk mbindee fi ni ñu toll ta woor bis boobu ñi woor bis boobu yëpp lim bi ñu toll yàlla ne naa la ko bindal ci tuyaaba waaye it ñi ko woorul ñëpp tey jullit danaa la bindal yoolu lim bu toll noonu kon limu ne limu jullit ñëpp ni ñu toll lim bu toll noonu ci tuyaaba ngay am keroog bi nga wooree yow ma arafa parce que yàlla ne ne yonent limu ñu woor ak ñu wooru laay boole ni ñu toll ci jullit ñi bindal la lim boobu mbokk yi ci benn bëccëg nga xëy rek fajar xëdd yendoo woor Moussa ba sept heures sept heures demi ba ñu ne nodd nañu nga ne ma dog yàlla ne loolu nga def yonent bi nee na yàlla de jox la payooru ni nit ñu toll ci àdduna tey ay julit lim bu toll noonu ci ay tuyaaba kay am Moussa àdduna bi ñaata ñaata ñaata julit a fi ne a <laughs> ñaata ñaata julit ñoo ci àdduna ku ko mën a lim kon neel say tuyaaba kenn mënu koo lim yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni bu bisu arafa ñëwee iza kaana yawma arafati nashara allahu rahmatahu yàlla ci lay tasaare yërmandeem gi ci bëccëg googu ay mbokk yi yàlla nañ ko fekki yàlla nañu dajeeg bëccëgu arafa mu ne ci bëccëg googu amul bëccëg gu gën a màgg ci yàlla ci njéggale ni bëccëg googu bëccëg googu Moussa ci la yàllay xool kenn rek mu nekk nit koo xam ne daa saay saay lool doon nitu safara yàlla ne diw daal donte nit safara la mais bëccëgu arafa gi tax na baal naa ko àjjana lay dem Moussa loolu bëccëgu arafa lañ ko am moo tax bëccëgu fonk la de mu ne wa man saala allahu taala fi yowmi arafa xaajatan képp ku laaj yàlla ci bëccëgu arafa benn aajo boo amoon mu tëla lool mu ne nga tëju sa laaj ko yàlla ci bëccëg googu mu ne yëgal ni sunu borom dara la ko jox qadaaha lahu yàlla dana la fajal aajo boobu wa sawmu yawma arafati yufakkiru sanata maadiya wa sanata mustaqbila Moussa wax nañ ni sax ku wóor bisu arafa li nga rate woon ci ay koor ba ca goog nga woor rek mën na ko fay dana la dimbali ba jamono ya nga nekkee zënta am koor yoo fa foye woon ba ca go arafa gi boo ko fonkee ba woor ko jaamu ca yàlla dana defaraat woor yi nga weesu woon waaye dana la jàppale ci woor yi ci kanam te am ay jafeñ-jafeñam ci benn bëccëg googu kon mbokk yi bëccëg gi li mu làmboo bari na de waaw bëccëg gi li mu moo tax am na benn nit ku baax ku yàlla baaxal dafa gis benn waay ca makka mu taxaw ci kaaba gi jàpp ci buumu kaaba gi nan allahuma bi xaqi saaimi arafa laa taxrim nii sawaaba arafati ma nga jàpp ci buumu kaaba ga naan yàlla maa ngi lay ñaan ci àqi woor bisu arafa yàlla boo ma xañ koor bisu arafa nen waa ji gis waa ji toog rek di ñaan loolu fa qultu lahu nee ma wax ko wa lan moo tax ngay ñaan ñaan giirek ba ma la xoolee nga toog fi boobu ba léegi ñaan gi ngay ñaan nee na fa qaala kaana walidi yadcu bi hada duaa falama maata raaytu fi lmanaami fa qultu ma faala allahu bika qaala gafara lii ولما وضعت في قبري جاءني نور فقيل لي هذا ثواب عرفتي قد أكرمنا به nana waaji bi mu ko laajee lu tax ngay toog di ñaan naan yàlla yàlla boo ma xañ yoolu bi su arafa yow daal ci suba ba léegi gis naa lool ngay wax mu a waaw sama baay dafa dee taman sama baay dama ko doon dégg muy ñaan ñaan gii buñ daan ànd maak moom ba fii ci bisu arafa waa bi mu deewee nag yàlla won ma ko guddi ma laaj ko na ko baay sa barzaq nu mu mel mu ne doom yàlla jéggal na ma lu ma ko mas a tooñ mu ne ko doom daal man keroog bi ngeen ma suulee ba dëdd woon ma ginnaaw dafa am benn leer gu ñëw leer gi ne ma xam nga ma ma ne ko déet xaw ma la mu ne man la yoolu arafa man la bëccëgu arafa man mii nga wooroon benn bëccëg te ñaanoon yàlla mu may ma la yool wi man mii ma ñëw leeral sa bàmmeel man mii nag maa lay taxaw ba keroog ngay dem aljana waa ji ne man daal segam jot naa sama baay mu jox ma information boobu te moom arafa la te moom ma nga ca barzaq man daal moo tax sama dund heure bu bisu arafa jotatee damay toog di ñaan sama borom yàlla bu ma xañ yoolu arafa mbokk yi ku ne ci ñun bëccëg gaa ngi noonu di ñëw yàlla bu yàlla xañ yool wi yàlla nañ bokk ca ña yàllay nangul seen bëccoo arafa bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam sayduna muhammad ne man xafida lisaanuhu yowma arafa wa samcuhu yowma arafa wa basarahu yowma arafa gafara lahu ila arafati sayduna muhammad nee na ko yàlla dimbali ba bëccëgu arafa nga fexe ba ñetti yii nga teeku Muusa te wattu sa làmmiñ ba du wax safaan ci bi bisu arafa ah waaw mbokk yi nag ku bëgg dara dangay ngay dara ah Moussa bëgg yoolu arafa ba pare bëccëgu arafa nga téye sa làmmiñ boyal ko lu ñaaw loo xam wax ko euh, monsieur le ministre bi nga xam <laughs> lu ñaaw loo xam wax ko monsieur le président bi nga am lu ñaaw loo xam wax ko euh, sa ad ki fi nekk di wut réew mi lu ñaaw loo xam wax ko ci nit xam mais yow bëggoo yoolu arafa soo bëggoon yoolu arafa bëccëg gi di nga ko bàyyi xel fonk ko yonent man xafida lisaanuhu yawma arafa laa wax ku wattu làmmiñam bésu arafa ba waxu ca safaan ay noppam mu sàmmonteeg moom bésu arafa ba waxu ca safaan ba dégluwu ca safaan ay bëtam mu sàmmonteeg moom bésu arafa ba seetaanu ca safaan mu ne xafara allahu lahu ilaa arafati yàlla nen jéggal naa ko bàkkaar bu ma defoon foofu ba arafa déwén di ñëwaat diggante arafa bii mu taxaw ba bu déwén baal naa ko lépp lu fi def baal naa ko parce que bëccëg gii mu ma fonkal xamul man yàlla ni ma ko fonke mbokk yi rasulullah wax de nee bis baa ngi noonu nanu ko bàyyi xel bisu ñaan la wata gis ngeen ñi dem màkka buñ fa taxawee dañuy ñaan foofu ci arafa Moussa dañoo ànd ñoom ñëpp dem benn waay li may nettali mu ngi ci téere yi benn waay dem gaa yi yegg si ñu aj mu aj ñu dem te Arafat ñëpp di ñaan Moussa waa ci xam nga lu mu fa wax moom alhamdulillahi ala ni'matil islam wa kafa moom loolu rek la wax wàccaay loxoom dana man maa ngi sant sama borom ci may gi may ma bokk ci lislaam man daal taraanga jooju sax doy na ma wàccaay loxom dem ñibbi yàlla yebal malaaka yi ne leen dem leen calculer leen ma diw tuyaaba yi ma ko nar a jox ci sant googu mu ma sant ci bisu arafa malaaka ya toog fa Moussa di calculer ren ba déwén mënuñoo wàcc résultat waaw heure bu ñu plissé <laughs> affaire ba gën a bëri <laughs> ñuy calculer rek affaire ba sottiwul ba déwén gaa yi ñaqooti waa ji ñaqooti ñu ajati mu aji ñu tawaaf mu tawaaf ñu def safa ak marwa mu def safa marwa ñu dem arafa mu demat demaat place ba mu taxawoon ti loxo ne alhamdulillahi ala ni'matil islam benn malaaka bi fëgg ko ne ko góor gi nga baal ñu dimbali ñu rek bul yeggale ñun lii daaw nga ko waxoon daaw ba ñu ngi calculer li nga am ci nu mënuñoo wàcce boo ko waxaatee fii gis nga ñun déwén lañ jëm fii duñ fi buusi de dimbali ñu ndax ñu mën a ñibbi <laughs> ah Moussa luñ dégg. ah bëccëg la goo xam ne lu ci waay wax yàlla mu ndaw ndaw jàppal ni dana rëy waa ji daal cantam googu li muy ndaw ndaw kuro rëy na lool ci kanamu yàlla mbokk yi kon bëccëg gaa ngi noonu ñuy jub yàlla na ñu defal ñu tawfiix nu fekk ko waxtu we ma dab mais fadailul arafa jeexul de man ak yéen suba dañ ciy del siwaat xam taraange yi ñu yàlla defal ci bëccëg googu muy yow ma arafa maa ngi delluwaat sant ñëpp gërëm ñëpp sama jigéen Adja Ya Khady yal na yàlla taxawul ñu ko fa mu nekk ca màkkatal mu karam yàlla defal ko tawfiix mu dellusiwaat ci réew mi asalaamaaleykum mbokk yi wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu